pourtant ah, bëgguma jàkk ji avancé waaye nag dama jaamu yàlla lekk ma ñor dañuy waxante dëgg siñ seen siñ seen mag bu amee sutura moo ko may boppam yow ci jëm boppam léeg léegi da ngay sat di kat yi daa may dëgg te nag mag day wax dëgg siñ Cheikh Mbacké defut ci jàkka ji dara nan ko fi jële boo waxee man mën naa dem ci siñ Cheikh Mbacké mën naa koo bañ a wax loolu léegi xam nga lan laa bëgg waaw mag su amee sutura moo ko may boppam ah bu ma waxaat da ngay waa léegi sëñ seen waa jugal génn digal ñibbi guddi na gannaaw dama fee ñëw nga may léegi dog jot sax demal ñibbi yow bul dog ndax wooroo waaw demal ñibbi rek bul ndax wooroo waaw te nag baagante bi na bañ a dugg si man la ba dégg nga man maa la ba damaa bëgg nga toog fa nga dëkk ma toog fi ma dëkk ku ne am jamam yoo xam nga ne sa gàttaay bi ma fii ñëw maa la jërëjëf yow demal rek ngay mel ne Ablaye Ba Ablaye Ba ka noonu doo dara sa sonte bii nga sol sim siñ seen day wër di fenn fenn kenn xamul man naa siñ seen mi jow xam na ah dafa ngeen ne lii dëgg la mu bëgg maa dugal waaye la ma ko wax xaw na koo rey dinaa gis suñu seex Mbacke na ko rek suñu seex ne yaa yàq jaket suñu seex la ma koy gis ne ko njaga nee la yaa yàq jaket jaket wër nga koo yàq waaye bu ma ko Mbacke Mbacke yi dañ may ñaanal ma dundee xaaral ma bañ a wax loolu lépp ci situation koor rek